voilà mbokk Samagal TV mbokk internet yi ñu ngi fii ci première édition Saldek euh, tey nag ma taxaw fi nga xam ni mooy macha allah Fobert agro business mun naa wax waaye mu neexee ne ferme Maxtum ndax euh, liggéey bi benn la. Euh, tey nag ma ñëw fii gis ngeen entrée xar yi ni mu demee woon ak li Euh, mu nekk une très belle exposition une jeune sax la ñu indi euh, loolu nag euh, balaa ma <laughs> pare sëñ Mansour dina ma wax lu waral loolu sëñ Mansour maa ngi lay nuyu. waaw Cissé Dia maa ngi lay nuyu di la ziar. di internet yëpp. di santaat yàlla. ñu tey. di kontaan nag ci éleveurs yu bëri. waaw éleveurs yi di di leen ziar bu baax a baax. di leen wax ni it am nañu naxar ñu taxawuñu te loolu délégué yi yaakaar naa ni ah, paa yi tàmbale ci Paa Mansour ba paa yi yëpp teew nañ kër ga jaal si paa bi te loolu fa lañ yendu bis boobu te loolu mënuñ leen koo fay waaw éleveurs yëpp amuñ seen fay neneen ñi ñu nuyoo ñi déggoo ñi déggoo la ñi ñi woo jotuñ ñëpp ñu ngi leen di ziar di leen wax ni naqar bi ñoo ko bokk moo taxit bëgg nañ ci eh, dañoo jóge rek ñëw foire li ñu jàngal yar ñu ci moo tax ñu jógaat ni mënuñoo toog foog ñu génnaat foire génnaat xar yi. parce que paa bi ci loolu la ñuy yar. loolu tey ñu génn tey foire Kër départemental Kër Massar expose suñuy xar. wane ne liggéey baa ngi fi. dañ ko àndoon ak mag di ko liggéey bu fi mag jugee dañuy continuer liggéey bi muy santoon. ci lañ nekk moo tax ñu génne suñuy xar. ñëw ci turu Fobir Agro Business ci turu Ferme Maktoum. macha moo teel liggéey bi incha allah. ñu ngi koy ñaanal paa bi yàlla ko yaay yërëm ko àjjana ndax ni mu def émission rek yaa ngi wax ci moom euh, fi ngeen jaar ak ni mu teg tee wallaahi euh, macha allah yàlla ko yàlla yërëm amiin amiin tey ñu exposition bu rafet mm-hmm. euh, dugal catégorie añu añu añel génn ñaari sa ñaari añel yëpp génn bii jël deuxième bi jël troisième mm-hmm. ak nga li ma beneen añoo bu doy waa ci biir mm-hmm. tey daal da nga ma indi ay xale quoi lu waral waaw xam nga élevage moo ko laaj Eh, Jomma ñaaw dafa nekk maal boo xam dafa extraordinaire toj élevage bi xam ko mu nekk maal boo xam ni dama waxoon c'est le prototype de laadum dix dernières années yi ñi coow ñi nangu ñi bañ tey nag production Jomma ñaaw lañ toll ci wane ko ñi ay doom yu jigéen lañ mais di rakkam bu bu ñu naan Laman nekk doomu docteur Mansour bi ñëwoon Tëngéej ah. indi xaar euh, jeunesse bi wane ne xar yi fan lañ jëm mhm. parce que tey élevage euh, boolee xar yu baax baax na mais li gën ci élevage mooy nga boolee xar ñu xam ne dara dafa xew. croisement mooy élevage. dajale xar yu baax daf lu éleveur bu mag jënd xar yu baax dajale leen taxul mais def croisement complémentaire juddlu ay xar yu am version améliorée. te ñoo ñëw nag pour wane ni ñi ngi ci loolu. defoon nañ fila indi seen i mag ñoom mu def sensation ñu toog battre en retraite ñëw génnawaat yeneen tëng version nouveau modèle bi. ci lañ nekk nii nag mooy sëtu sàllngaar yi waaw doomu jooma ñaaw yi ñoo génn fi ñu doomu docteur Mansour waaw ak doomu ay doomu rakkaneex doomu rakkaneex yoo xam ne seen yaay doomu sàllngaar yi la pour wane ne continuité la chaque jour lu ñu mës a exposé rek bu ñu lu ñu njëkk exposé ci ci lu mujj li waaw loolu lañ indi waat tey ñaari añeel yi bugul wurus la ak uur ay nii ni uur ay nekk nii nekk ay cheikh ay feex lañ waaw nekk rakku rafet njort ñii wane nga ne gënoon nañ ci bi. jigéen nañ émission bi. waaw mboolee jigéen yi gënoon émission bi ñoom ñaar la. Hmm. bu ñëwee tey yàlla daf ñu classé. Eh, te xam naa ni sax eh, incha allah rabi ñaan nañ yàlla ñu continuer di concours. <laughs> parce que yaakaar naa ni tey ñëpp nangu nañ ay xaru maturation lañ. ay xaru beauté lañ. parce que élevage moom li ma njaay naan njool gudd rëy rafet. ci lool la ñuy liggéey. macha allah waaw. nekk ay deux euh, euh, nga am euh, yaakaar jël ñaari seex dugal leen concours. waaw xam nga d'habitude dañ daan gis seex yu complet wul voilà mais xar yi léegi dañuy jur ay seex seex yi mel na deux portes yu bokkul waaw portes yi bokkul uh-huh. parce que seen papa seen seen yaay dafa jur ak sàll ngaar yi ay seex yu doy waar ñu xaw a rawante mu jowaat ak jomba ñaaw ñu xam ni defoon na ko da koy defaat parce que version améliorée sal ngaar yi mooy jomba ñaaw moo tax tey bi mu juree ñu xool leen xool seen i maturation bi xool xar yi ñu xam ne mënuñ leen ñoom ñaata mois waaw ñoom ñi nga am 10 mois macha allah nekk xar yoo xam tamit ah li tax ñu ñemee concours. Ah. xam nañ ni seen i morom. mënuñ leen. dëgg la waaw te yàlla def na ñu yoo xam ni xar bu ñu mensé ëppale woo leen ko. macha allah kon nag dañuy pare na si ah, rek dugg rek. ñu toll fan ci wàllu âge. kii ñu toll boobu xam porte nañ ou porte. Euh, non non tëbooguñ sax tëbooguñ sax. koo leen bëgg a jox kii say boole courage koo leen courage non actuellement moom. Euh, panopile lañ ah. mi ngi fi euh, Jules mi ngi fi mën naa liggéey ak ñoom mooy jeune mal nekk. ñu àndal waaw. caporal mi ngi fi mën naa liggéey Diba mi ngi fi mën naa liggéey ñoom su ma mën naa leen sax fixé ak mas dolli. en tout cas kenn moom nag moo ko jox Cheikh Diba. ah Cheikh Diba. Ah. war na cee liggéey ak kenn. Ah. Ah, caporal champion bu mag bi. xar bu ci ruq bi mën naa liggéey ak ñoom. mos dolli. waaw su ma neex sama jël doomu jomba ñaaw bi ñaan mos dolli. waaw tegaat ko si ñoom. mos dolli ginnaaw ko keroog tamit kër ga. ndax fixé nañ jomba ñaaw. waaw ak ay doomu Sall Ngaar ñu jur ay ndaanaan. waaw ñu fixé Sall Ngaar ak ay doomu Roi Basi ñu jur ay ndaanaan. kon sañaa jël doomu jomba ñaaw dóorante leen. dóorante leen te xam ni dara day xew. Hmm. waaw kon daal xam naa ne moom. Mhm. ñaan ñii dama bëgg nga jox kenn mos loolu kenn ki nga jox ko. Euh, ah, Cheikh Diba Cheikh Diba. ah waaw looy def. Ah, en la fi nekk. waaw mais tënk yaa ngi fi. jeex na waaw tënk yaa ngi euh, euh, bi Jules Lamane. yaay jomma ñaaw muy cat di doomu si. di sëtu Masala di sëtu Maktum di sëtu Sasulon. waaw sëtu Biram mhm. ko Ngaari mu jur xar. ñu xool gis jomma ñaaw ni mu bindoo. waaw docteur Mansour nekk caatu Sall ngaar yi. moo ko daan Bachir nekk xar boo xam ne macha allah xeetu ossature am xeetu booteem ak caractéristique yi mu yor benn xar yoru ko. sëriñ ne nag waaw sëriñ ne nag ñëw dina ko jëlaat ba dañuy delloo ñi. waaw ah. sëriñ nag Sall ngaar bu jëlee ak yaay jomma ñaaw lii. Ah. ku jël docteur jox ko yaay jomma ñaaw dina jur version améliorée. parce que sal li mu yor da ko def ci ren Bachir. ok. kay ñëw indi caractéristique yu Sall yo ossature boo xam ne sax moo bu Sall bi ñu liggéey ci loolu moo tax ñu tegaat ko si yaay joma ñaaw mi te macha allah bi mu laman ah xam nañ ni kat jur laman version améliorée ñoom joma ñaaw la ah, macha allah waaw moom moom ñaata mois. te Jules Lamane moom ñëwee ko mag yi un mois. waaw ñu ci neuf mois am. mais mais mais mais gis li mu li mu tracé bopp bi. non loolu loolu la. yàlla yàlla la ah. lépp lépp lépp mel ni benn mesure bu nekk bu rafet. xam nga nit day defar. mais yàlla day def. dëgg la. xam nga fabriquer affaire du benn. waaw day def. nit mooy defar defar mu ànd ak déchet. xëy na nag yàlla leen def yàlla yàlla def. dina ci ñoom waaw ñun dañuy boole rek. mais yàllaay def. waaw. kon nag defar ak def du benn. kon nag bu xasee mel nii. Mm. du ni ñoo ko defar. Mm-hmm. dañaan naan def. di ko sant yàlla bu baax nag. waaw mu nekk un euh, agneau très beau. non da njaay ma njaay mu génne ko. nga càmm ko. champion. waaw Gilles man mu ngi noonu ginnaaw ba ñaari champion yi demee Gilles Lamane mu ngi nii. waaw Lamane na xam nga nag dafa nekk macha allah euh, xar boo xam ni li ko traversé traversé wul xar yu bëri xam nga tey ferme Maktoum bu dee boori ci ñoo ko njëkk a gëm di ko liggéey élevage dama ne ku mës am xar bu rafet dafa dal sa loxo rek mais liggéeyoo ku am xar bu rafet moo tax day gis ko am xar bu rafet tey bu soo mu ñàkk ko. mais li gëm ni xar dafa war a rafet di ci nekk di ci liggéey. Mhm. Farmacto bi nga ko defee léegi-léegi ëpp na 15 ans. 20 mhm. ans sax jamono na ko. Mhm. gëm ni xar dafa war a complet dafa war a njool gudd rëy bopp bi rëy rafet. te loolu dañ ci nekk kii nag nekk Sëriñ Sall Ngaari docteur Djurko docteur Mansour xam nga ne ba mu ñëwee Tëngéej PC yi. xam nga ne docteur Mansour xar bu ma ndoroog amul ossature amul ci xar. caat Djurko caat nekk bi mu ñëwee Kër Massar gii foo war fekk ma ñëpp xam nañu Diop si moomu nekk doom macha allah Pape Dieye macha allah ñëpp xam nañu bóote ci moom la yam Moktum Moktum fa yam yaay Damel Damel nyom Tidiane osatir fa la yam kon xar bi ci côté yaayam rek dajal na lépp nga ñëwaat yaayu caat nekkaat sudu Bachir di surtout Moktum di surtout Biram Dieye mais pare nekk sudu surtout Soussino macha allah la traversé nga ci ñëwaat Roi ñëw ñëw Tidiane Saalum ñëwagul Algoor ñëwagul Birame ñëwagul kon bépp xar bu ñuy taggee ni day def bóoti ci moom la dañu léegi nag yaayam bu judduloo juree jomma ñaaw ñu ne gongo mu jur waxal jàmm ñu ne gongo suñ ko tegee docteur Mansour xar bi mu jur buñ ko abu tuddul woon sax tur ñëpp xam nañ ne yaayam bu jur xar xar bu xar bu tagul ci yoon bi mm-hmm. moo tax tey ñu indi ko rek pour wan ko éleveurs yi échantillon la parce que rafetaay dafa am ay différence bopp dina rëy tooy bopp dina rëy wow xam nga loolu. bopp dina rëy ba pare tooy bopp rëy wow. boote yi bokkul boote dafa am rafet dafa am rafetati am. <laughs> dëgg la waaw. kii nag ci rafetati ngeen liggéey. ci rafetati la ñuy liggéey parce que roi Bachir boote ci roi Bachir la yam. Hmm. boote ci macha allah la la yam. mais fusionner ñaari taar yooyu ba mën ko am ci xar moo jafe. te gars ci loolu lañ nekk. macha allah ah, kon nag lamb dafa nekk pour tuuti boo xam ne ma wax jour rek am loo xam ne boo ko waxee du égo trip waaye dafa nekk lu réel. waaw tey jeune mâle am benn style bi am benn ossature bi am benn coupe bi loolu yombul ci dajale yeneen direct mo koy maye. mo koy maye en tout cas. mom moom li indi mi ci foire bi ak ni bobu mel ak ni ko tracer lépp. macha allah lu ral la ci xar quoi. te boole koog macération. yow gis nga seexam seexam non la extraordinaire. nga gisone papam docteur Mansour. da nga yakane fa la boobu boo teyam xam nga docteur Mansour ni ba dañ mo xone ma xar bi mo ton ligue xar bu ko dakh ndax xet ossature ak botem mais tay yàlla def na ñu amélioré ko ci question yu bari tay docteur ak mom différence bu ndaw mooy tuñ yi dinañ ko amalé tuñ bi gëna naa fono bi docteur amulon fono ki am inna fono pour dire ne xar du jeex ñu lo lañ gëm fo vera gëru du business loolu lañ gëm fer moktom lañ gëm moy liggéey élève xar du jeex lo am ba yaaka ne comprendre na la ngi liggéey lu ko gëna graw kon yow chaque jour da nga yëkëti baar mu gëna kawé tay ñu ci docteur ba bu ñu sañoon suba bu ñu lay présenter xar xar bu mën bu bu mën bu mën bu mën zul ah, lamane lañ lay présenter ta tay par rapport ak pawam même âge mo sut pawam mo gëna gudd ah. amélioration mi nga te tey kii bu waaju luñ ko foire Cissé wallahi alazim géttu 4 mètres la ne woon 4 mètres sur 5 boole ko ñaari xar yóbbu ko ci naaj bi boo gisee karo gi sax kii nii lan nga def ko noonu parce que dañoo jàpp ni géniteur bu ñu samp la dañ koy teg ci meilleure condition pour mu wér rek boo xasee foo ko ñaar ba gën a mature ñu jox ko poids normal ok dañ koy get mu oyof nga docteur ni mu toloon waaw mi ngi tol nu ko neex mais dañuy privilégier santé xar bi bàyyi ko mu oyof màgg am maximum ci macération parce que ñoom poids dafa ne si ñoom yàq dafa ne si ñoom. waaw ñoom poids dafa ne si ñoom. macha allah kon ñu dem xool yeneen añel yi. waaw ay doomu rakkaneex lañ bëgg a génnee. waaw surtout ngaar yo xam ne rakkaneex moo leen jur. waaw doomu bénéfique espoir du Sénégal bi. waaw acca ñu ngi ci beneen. Euh, beneen duo encore boo xam ni ba ñaari duo yee génnee. waaw ci lañ la mën ñëw digg seen diggante góoral leen. andi nañu ma beneen euh, yeneen ñaari añal yoo xam ni macha allah ba léegi dafa naa ni ci doomu docteur Mansour la wala. waaw non ñi ay doomu rakkaneex lañ. ay doomu rakkaneex. xam nga dañuy indil sëtu Sall Ngaari Ngaari boobu moo ko jur. waaw Ngaari yoo xam ne doomu Sall Ngaari bu jigéen moo leen jur. waaw ñii bébé cuuj moo leen jur. te doom ay doomu rakkaneex rakkaneex doomu nekk doomu Espoir du ak Belfi. te Belfi ñëpp xam nañ ni élevage laadum moo bu njëkk indi 106 hauteur 850 si femelle te nga xam ni berfi bi dafa extraordinaire LCS si moom la fekk baax auteur ñu jël nag sàllangaay bi moom dafa ak beauté teg ko si pour indi version améliorée parce que berfi dafa xawoon felt tey ñu liggéey kook sàllangaar bi ñii seen yaay nekk bébé cuuj bébé cuuj nekk doomu sàllangaar yi yaay bébé cuuj nekk cuuj nekk tamit macha allah bi ñëw bébé cuuj moom tamit kala mi ko jur doomu raaw Bachir la kon dañoo jël doomu raaw teg ko ci macha allah amaat ci doom mooy xar yoo xam ne boo leen doon tàggee fii ba suba seen deret dafa laal boote saf ci sap. macha allah rakaneex yi nekk xar boo xam ne dañ ko bàyyi xel surtout rakaneex yi dañ leen bàyyi xel waxuma la sax doom bi mais sëriñ bi sax dañ leen bàyyi xel. macha allah parce que fa nekk xar yoo xam ne dañoo déggoog sàllangaari bi ñoom ñoom dañuy def cër bu àndul ak dara ñii di def dara xam nga koy def cër kese boo defee kuy def dara dara day xew. macha allah tey version améliorée ñoom la ma nii. dafa war a génne si ñoom. ok ndax ñii sàll ngaari piis bel fii la boo jaayaatee nag sàll ngaa pêche belle fii boole ci leneen. Mm. mu joxe leneen. ñoom ñaata moo ñu. ñii nii seen douzième mois. douzième waaw. ñoom ok. waaw ah. seex yi. ay seex lañ ku yaayam. bébé cuuj ju doomu sàll ngaa bu weex bi. waaw ah. ñoo bokk yaay. ah ok. non foire bi laa indi. ay seex lañ. non foire bi seex rek la ñuy indi. Ah, ay seex la ñuy indi quoi. dañoo dañu woon gars yi ni mën naa nekk. Mm. xar bu baax bu nekk ak seex bu nekk benn doom lay male. ok waaw ay seex lañ non non boo xasee passe mois rek jeunes yi jóg

actuellement lii ma gis nii ak aña lii ma gis ah baax na. beneen bi non da ngay da ngay ñëwaat. da ngay ñëwaat. waaw parce que élevage bi jeexul. dama loolu ñun suñu élevage nii la def nii da ngay ñëwaat Kër Massar xoolaat xar yi jëlaat ñëpp demaat level si xoolaat naissance yi. parce que liggéey benn la foog agro business farm lépp benn la. mais ci kanam tuuti mos dolli. incha allah mos dolli. incha allah nañ ko bàyyi xel. jaajëf. waaw ndax xam nga dañoo ñëwaat ci beneen façon. incha bu njëkk per la yoon mooy téye rek gars yi di téye fi mu a dawal te per bi ñuy gën a bàyyi ñuy dawal. Ah. waaw parce que élevage yooyu toll foo xam ni foog nga xeex ak yi ci machine bi pour ñu duraate. <laughs> leer na te fa lañ jëm. kon jeex na waaw nañu gars yi nañu xaar ci machine bi. joxal ma adresse ak numéro bi. léegi gi la. deuxième mbedd à droite rek en face parc médical Serigne Saliou. macha allah

ndax seen yaay yee bokk papa seen maam yee bokk papa seen pap ñoom ñu seen bopp ñoo bokk papa kon tey jii nii yaakaar naa amul kuñ mënul jox amul xar bu ñemul joxe laman mii sax boo yor boo dëgëroon tey man la laman kaa yóbbu ko ah. te du yàq liggéey bi dara barke rasulullaay kon euh, gëm nga na nekk xar bu xeexi lépp la mën xam nga ni bu nit ñi yoree seen maal di ko vitaminé di rey seen bopp di xont muy rëy pour ñëw foire si yow nga yóbbu xar ci naaj bi pour mu foire si di toj foire bi ah. kon am potentiel du benn. dafa leer bëgg TV euh, macha gis ngeen tey ñu ngi ci clôture Saldek mooy tey nga xam ne mooy le dernier jour euh, nga gis nag ma àndoon ceeg samay xarit muy waa Feu Vert agro business gis ngeen euh, fi nu génn tey ñëw indi ma benn exposition bu jeune ngeen gis li ci waxtaan ak léegi ak ki nga xam ne mooy sëñ Mansour ah mu nekk lu am solo tey nag dama koy tëjee ak sama xarit Mandiaye Mandiaye maa ngi lay nuyu. grand Cissé maa ngi fay. Mhm. di la ziar bu baax di nuyu bok élevage yépp nuyu monde entier di ñaanal sunu papa Papa Badara gey anok suñu borom yërëm jéggal ko xaru ko àjjana gëna gën a kawe doonoon koo xam ni moo noon nekkoon sunu lépp sunu papa nek sunu xarit melni suñu sunu morom nek sunu wasila nek sunu lepp limu don suñu mënuñu ko sax euh, mesurer yalla xam na ko euh, génn àddunaam ñu lool am lu bari lu mu wàññi am lu bari lu ñu jàngal ci aduna suñu sorti bi sax la gëna waral moy genn pour mëna soulager dara pour mëna bokkat ci nit ñi mais danaka mëna ni sax da ngay da ngon déplané ah, di ñaanal tamit suñu papa Lamine Diop gis nañ taxawayam di ko ñëpp di ko ñaanal yalla na yalla ko suñu borom sutural taxawoo di ñaanal suñu yaay ñu fi bayyi tan fan bay ah euh, sama tante Ndeela Diop sama yaay li dacc ci paa bi gis nañ ko yalla ko suñu borom fay dafa leen ñu barké seen njaboot di la ziar di ziar sama grand frère Sëñ Mansour le philosophe nee naa xar eh, yi bu doon bu doon làmb la ma fi may fas sen bio yenn ya beneen affaire la xam nga xar bu doon làmb la. ñu may fas xam nga ni ñu bari ñu man leeral ko ñu bari ñu fogg ni sama sama cheikh wala sama morom la serigne moy taw may cat. ok li ma magge jege fukki at dafa bari. machallah moma yar mën na ko wax moo ma yar. bu daan njàngi sem 2 damay taxo ci buntu classe bi boobu mënu sax mu duggee ko mënu ma wax yaa may dégg. jëlal ko saag bi teel ko saag bi yóbbu ko bi mu yor prison am na lu ma daan wax euh, prison yi moom après wax nan laa daan wax nen wooy nen yeeg yooyu kon mu leer na ni boobu yàgg na bëgg càmm sëriñ sëriñ paa lañ ko magee <laughs> lu yéeme laa lay wax paa yi maguñu ko de moo topp génération bi topp si paa yi moom lu leer laa la wax lu ma jaaxal saa yi ba waxee moom mu ne ma wax loo xam nga rek xale yi léegi dañoo mën a bëri wax non paa yi mënoon doxalee noonu ku ne ak lam lay cërale sëriñ mooy teg semence yi mooy courage mooy teg lu bari ah mais rek comme dafa bari bëri yërmande turandoo bi la day may xar rek ñu bëri dañuy foog duñ jaay xar te yàlla xam ne ñoo jaax jaay xar suñu jët léegi dañ ko commencé di wax loo ñëw am xar yàlla xam na ko prix boo am am xar Cissé dama bëgg loolu jaay xam ko tamit ñu nekk si càmm gi nag di dawal yor ay maal yoo xam ni euh, ah, lancé woon naa appel gars yi loolu moom dafa leer moom Eh, émission ben émission woon def fan yee passé ni len gaay nañ baye xel caporal mu doon mal bo xamni yalla xamni ni élevage amul mal bu melni mom buñu buñu ñu bu quoi ci cieur ak ci boti ak ci jur néna caporal yorul crayon big la yor lu mu bind du ko effacer billahi yorul crayon di gomé mi ngi kër Lamine job sam papa waaw liberté 6 extension kan doomu sàll ngaari càppaa coli bi dalin koor bi bëgg ni koor bañ koor kookoy sàll. sàll gaari. dama ni bu doon tomb xar xar daganoon ñuy ziare tomb sa sa sa gaari ba na ma. te fii ak fukki at da gis dàq rek. fii ak fukki at ñëw di laaj fan suul sàll gaari waaw lu leer la lay wax. mais na euh, daal ma bay na bay na loolu maal muy Cheikh Diba. waaw non kooku it. waaw mais nag lii di ñëw. Ah. mos dolli. Ah. retenez bien son nom. les motos sont nombreux mais ne sont pas les mêmes. bu ko yàlla ah. moom ak lamaan. élevage dinañ leen dégg mais mos amna ci si yaakar yalla bu suñu borom tass yaakar parce que suñu papa dafa ñu noon boo ko gisee daan kontan ne ñu njaay man ngaa ma ki moy man jomba ñaaw ah. ko lutax mu ma dafa am lu jomba ñaaw am te am lu am jomba ñaaw amuko di ci profito nak di massaw suñu frère Matar waaw parce que jomba ñaaw xéena na jaay nañ ko mu faatu mais ñu la gëna a yalla xam na ko suñu yene ci xar bi dañ ñaan julli billahi diko ñaanal si xar bi sama papa bi bi ma ko waxee joma ñaa dafa ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un billahi wallahi taala yàlla xam na ko parce que fi ñu toll li ñu naqari mais di nga wax ni lu barkeel mooy lu tuuti lu bari génn si te joma ñaa xarum barke ñun xam nañ si dara nekk na suñu kër ba ba mu fay waaye jógee si la tëb xar ba mu demee am na ci lu mat fukki mbote lu teg waaw te doomu joma yi jël faar bi bi jël deuxième bi jël ta urul ay ni ak bëggul wurus gaay nañu xaar si kanam Cissé yow bi du contane ci yow parce que sunu waay nga sunu xarit nga dañu nan jël ta bobu dara xewul di dox ci lu bari di wax ni rek adresse bi keur Massar la rond-point guy ga boo ñëwee tali jaxay bi premier coin à droite deuxième coin en face plateau euh, clinique seigne salou numéro téléphone seigne Mansour 77 225 61 42 77 759 69 39 mooy sama numéro di wax ni ku yaatoo xel la bu xatee yàlla yàlla barkeel mais nu laa woowee mu ne nii. añoo nen añu koy boof. lii loolu lii loolu. dañoo ne mooy pigeon añoo nen mooy dañoo nen. waaw waaw añoo nen. añ koy boof. ah boobu ayoo bu la bi daa